asalaamaaleykum mbokki Tivaouane asalaamaaleykum mbokki àddina bi yëpp euh, ginnaaw bi ñu euh, jiitalee ci nuyoo bi Serigne Babacar Sy Mouhamadulil Mansour xalif général de Tidiane di ziar njabootu Seydil Hadj Malick yëpp tey ñoo ngi fii ci Tivaouane bu Seex Seydil Hadj Malick Sy euh, ñu fas yéene dugg ci émission boobu ngin miin fan yi ci man di waajal gàmmu Tivaouane ma seeti taalibe Seydina Mouhamad yi nga xamante ni ay jàmbaar lañ ci Tivaouane ci wàllu social ci wàllu njàmbaar ci liggéey ci wàllu référence ci wàllu jeunesse miin ngeen sama waxtaan man ak Badou Ndiaye euh, tey nag ma ñëw seet si ko ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni mooy waajal gàmm Badou maa ngi lay ziar bu maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di la nuyu di la. jaajëfal ci sa taxawaay di la sant sa liggéey bu rafet. jërëjëf waaw. Mhm. jërëjëf tey nag badu ñu ñëw gis nga gàmmu Tiwaawan at mu jot bu ñu ñëwee ci kër gi gis ni da nga yokk sa loxo euh, diggante badu njaay màggal ak gàmm dañoo jóge ñu gis li nga defoon ci màggal gi mais bu ñu ñëwee ci gàmmu Tiwaawan dañuy gis ni at mu jot da ngay gën a yokk sa loxo ngir gani Seydina Muhammad yi naka ngay waajal ak gàmmu Tiwaawan. waaw mais sant sant suñu borom rek te xam ni moom. Euh, guddi Seydina Mohamed sangu-sang yi kooku nit mënu cee am sago. Mm-hmm. defe naa dangay def au delà de tes limites même sax mën naa ko wax. Mm-hmm. mais sant suñu borom la rek loo xam ne la euh, wareef la fii la ñu dëkk juddoo fi yaroo fi donc mënta mm-hmm. ñàkk ñu mën ko bañ a doxal. il faut que ñu ñu doxe noonu gane dalal doomu aadama yi fii ñëw. ganale leen fexe ñu gàmm gàmm gu neex fexe ñu ñëw fi ak contentement dem fi ak contentement defe naa loolu mooy suñu wareef waaw dañu gis ci wàllu social euh, ni nga koy defee ci wàllu màggal ci wàllu gàmmu social loola dab la wala loo donn la ci waajur waaw loolu àdduna la rek xam nga àdduna moom boo ci nekkee olof njaay nee na butéel du def lu dul kubéer bay xeeñ. dëgg la ñun dañoo judd fekk suñu ay maamaati maam suñu ay waajur di ko def donc mënuñu ko bañ a ñàkk bañ a def. Mm-hmm. mooy li may wax léegi rek butéel moom mënut def lu dul la la kubéer bay xeeñ. ki li mu xam rek lay def. waa kay loolu lay def. te voilà du loo xam ne dañ koy def tey pour. Mm-hmm. fësal ko wala pour pour jaay ko wala pour utal ko dayoo. Mm-hmm. social sociale la da ngay def pour dimbali donc bugguma sax di sori ñuy waxtaan ci waxtaan boobu daal. d'accord mais bëgg naa aussi ñu wax ci gis naa la jeunesse de Tivaouane la euh, la am na ci ñoo xamante ni dañuy daw wutal si la parce que ci wàllu emploi da nga ciy def lu am solo fii ci dëkk bi euh, ñu bëggoon xam peut-être loolu bëgguloo ñu médiatiser ko mais c'est normal lu baax nit bu koy def ñu wane ko gis naa la majorité partie des jeunes yoo xamante ni ci ay entreprise lay liggéeyee loolu lan nga ci jublu exactement. waaw mais bon bay si sa entreprise di liggéey defe naa say mbokk ñoo la war a gën a jege. Mm-hmm. ak say am di jàmm ak ñi bëgg a liggéey. Mm-hmm. donc particulièrement nag à Tivaouane nga xam ne fii laa juddoo yaroo fi màgge fi. Mm-hmm. Eh, defe naa mënuma ludul oh, defal leen un retour d'ascenseur. un retour d'ascenseur nag boo koy dégg maanaam mooy eh, fi nga tette woo yàlla suturaal la fa nga amee fa sa teraanga defe naa booy dellu da fay delluwaat. Mm-hmm. ña nga fa fekk nga jàppale leen. Mm-hmm. ñu ànd ak yow ngeen liggéey. Mm-hmm. loolu moo waral peut-être li ngay wax ni mu demee noonu. mais liggéey la rek dañuy am ambition wu bëgg a liggéey duñ ko làmbaatu ji feneen fi leen gën a jege te ñu yaakaar ko fa rek fa li ñuy ñëw taxaw. effectivement loolu lu war la loo xam ne walla. damay gis la plupart da ngay wax ci wàllu sérieux ak wàllu jub ak wàllu nangoo liggéey surtout la jeunesse. non boo gisee may waxee côté yooyu maanaam bon loolu pour ñaax. Mm-hmm. la jeunesse la rek pour ñu mën a gëm seen bopp nangoo liggéey. Mm-hmm. man dans sens moo gën a tax may wax. effectivement donc euh, liggéey boo ci nekkee quand ne n'es pas déterminant. Mm-hmm. maanaam nga xam fi nga doore nga xam fi nga bëgg yegg. fi nga bëgg a moom da ngay jàpp ni que day dem à l'infini parce que amul limite. effectivement donc loolu boo déggee ñuy wax sérieux ci sa liggéey foofu laay waxee. Mmh. pour que kii door. Mmh. xam fa muy mujjantale. Mmh. pour mun a tabax lu dëgër. man dans ce sens laay gën a waxee souvent quoi. ban sensibilisation ngay def ci jeunes yi nga xamante ne dañuy ay xale tàmbali te jàpp ni bëgg a àgg fenn fi lan boo leen doon conseil tey lan nga leen di conseillé. bon li ma mën a conseillé jeunes yi daal actuellement nii. mooy euh, gis nañ un phénomène très récurrent bu nekk ci ñu koy wane ci réseaux sociaux yi di ko wane ci télé yi mooy ñii di jël gaal di mbëkk di dem. surtout di jar sax di jaale waa Mbour. voilà ci seen drame bu metti boobu. voilà di ci profito di jaale waa Mbour. Hmm. draam bu metti boobu ñu nga xam ne gis nañ ko euh, di ñaan ñi ci ñàkk seen bakkan yàlla na leen yàlla xare àjjana amiin yaa rabbal aalamiin euh, di ñaax tamit waajur yi di ñaax xarit yi di ñaax jegeen ñi ñi nga xam ne dañoo jege jeunes yi ñu ñaax xale yi euh, wax leen nañu gëm seen bopp gëm sa bopp nag weesuwul lu dul nga xam li nga bëgg mbëkk à des risques et périls dugg gaal pour dem Espagne pour dem liggéey fa am fa teraanga li nga fayee pour def ko soo ko téyee fii capital la de commerce la mun nga cee mm. liggéey mm. donc may ñaan jeunes yi nañu nañu gëm seen bopp mm. mbëkk mënta maye dara mbëkk jël gaal dem mënu la mënu la yeggal fenn expérience rek nga ciy am boo demee Europe di nga xam peut-être ci àdduna mais coono bi nga def foofu li nga fayee fii boo ko booleek coono ba nga fay daj capital la fonds de commerce ñun suñu maam yi déparé wuñu capitalu mille francs deux mille francs te dañ loon lal table billaahi te yàlla suturaal na leen tey mm-hmm. donc jeunes yi bu ñu gëmee loolu rek war nañu mën a euh, xam ni ñoom ci seen bopp mën nañ nekk seen propre euh, chef d'entreprise. parce que deux millions yi ngay fayee ñu tabax gaal dugal la ci nga tàggoo ñu ni la. te wóoru la ba xam di nga yegg. non doo yegg ñi ci bëri ñuy dem am na ñoo xam ne sax doo leen gis. parce que Barça wala Barsaq ki koy wax di dem xam na ni wóoru ko ba xam dina yegg. dama déglu démb ci TikTok laa ko gis ci réseau sociaux yi waa ji nee na bi muy dem dañ ne xale yi ku ci yore CFA na nga ko xotti sànni. Ah, pour bañ ñu identifier ban dëkk nga jóge ku ci yore carte sànni ko ci géej gi. loolu dara àdduna jaru ko. billaahi. tamit ñu ñaax. waajur yi ñu bañ a teg xale yi pression. billaahi. nañu bàyyi xale yi ñu dal. ñu ñaanal leen ñu am métier. surtout métier léegi dafay bëgg a xew ci surtout métier ñu ñaanal leen ñu am métier. ñu mën a créer seen propre business. créer nekk seen propre chef d'entreprise. man loolu euh, lu may lu may ñaax la jeunesse la. Mm-hmm. wallaahi est-ce que euh, foofu laay jaare Badou euh, mu am loo xamante ni dama koy dégg ci Tivaouane boobu ba léegi maa ngi koy wër mënu ma ko am en tant que chef d'entreprise ma dégg ñu da nga créé benn société bu tudd Atlantique Group. Mhm. di defar suukar tudde ko Mambo yi. Mhm. Badou lan moo waral loolu nekk fii nga jël la jeunesse ñuy liggéey te ba tey kenn gisu ko ci benn média kenn gisu ko ci benn réseaux sociaux ak loolu ni mu amalee importance dëkk. waaw mais xam nga li am solo mooy euh, li may wax léegi rek yërëm sa jeunesse jéem a xeex pour nekk un modèle économique jéem a xeex pour li la yàlla wërsëgal nga yaatal ko pour yeneen nit mën ci jariñu euh, soo crée suñu créé tey société bu tudd Atlantic Group muy def suukar dans divers formats di def suukar euh, en cube euh, mu nekk la phase une lii tey maanaam ci wàññi jàppal ni benn la ci wàññi da jàpp ni benn la te fi ñu jëm bu ko yàlla soobee dinañ dem bay bay parce que tamit bay bay lan. bay suukar. loolu moom mooy suñu mbébét. bay suukar suukar voilà. bay suukar di bay canne à sucre. ah ok di raffiner di def lépp lu war loo xam ne doo jéggaani. maanaam am une autosuffisance. alimentaire en loolu moom mooy suñu mbébét. te mën nañu wax ni phase une lañ nekk bon yeneen phase yi ñu ngi koy. expérimenté pour développer. pourquoi suukar bi nga tuddee ko maam buy. waaw suukar xam nga suukar mag moom fii lañ ko fekk. te fii ah. lañ koy baax. Ah. te maam moom ñëpp a ko wormaal ku ci ne am nga maam yow am nga maam. dëgg la. man am keneen am na maam maam booy maam booyu ñëpp la. Hmm. boo ko xoolee rek xalaat sa maam di nga ci gis sa bopp. képp kuy dund moom am nga maam. voilà mais sama maam ñu koy wax ajaratu Khady Ndiaye ca Pout. moom lañ ko duppee képp ko am maam rek te sa maam yaroon la nga am ci moom cofal boo xoolee maam booy di nga ci gis sa bopp ak koo xamante ni sa maam yaru sax voilà te mu jur sa yaay mbaa mu jur sa maam mbaa jur sa ndijaay yaa ngi ci biir noonu la demee suukar si qualité la wala naka nga ko gisee ba bokkul ci suukar qualité mën naa la dajaleel benn xale bu léegi de boo xam ne léegi mën naa woo faalu galas defe naa su ma juumee il pèse kilos mën naa koo teg ci kaw suukar bu mu toog ci voilà suukar suukaru qualité boo ko xoolee lu ñu fàng kenn du ko wane lu ñu fàng. jarut a jeex. jëlal saak bi jëlal saak bi ñu won gaa yi. Euh, bi saaku cinq kilos la. rafet ba jekk baax ci waañ. vraiment rafet baax ci table. voilà mun naa wax ni que boo yoree ñaari kuddu. mun naa suukar sa caakiri xam naa ni xam nga yow njóobeen nga da ngaa bëgg. <laughs> voilà ñaari kuddu mun naa suukar café. sukaru bekk bi tamit waxi nopp. sukaru bekk bi waaw. c'est du sucre <laughs> cristallisé en morceaux. Euh, la base c'est du sucre de betterave. betterave lañ ko defaree. day wax tàll. dana rafet. Euh, dana présentable. dina am qualité. ñu ngi xeex nag pour defar ci quantité au maximum. Mm-hmm. néew mu ñu dinañ mën a satisfaire toute la demande. Mm-hmm. Euh, de quatorze régions du Sénégal. Mm-hmm. mais ñu ngi ci def suñu kéemtalaay kàttan pour jéem a satisfaire mm-hmm. la demande. pourquoi société bii wóor na ma ne am nga place boo ko mën a def Ndakaaru wala Mbuur wala feneen nga implanté ko at. waaw na. béy ci sa wewu tànk <laughs> tànk. nag defe naa fu ma gën a jege fi ma juddoo yaroo fa cosaanoo fa. fudul Tiwaawan di dëkk sëñ Xaaji Malick su ma ko defee feneen damay jàpp ne safewul boo duggee ci demee seeti sa wasila wala yow tey boo doon tukki di nga dem seeti sa wasila nga tàggu ko ni ko ñaanal ma maa ngi dem dëgg la à plus raison nag ma ñëw dugg Tiwaawan def ko fii fii laa koy dooree fas yéene mu law dans les quatorze régions du Sénégal. fu ne nga samp fa benn société. sa fas yéene naa ko. yàlla ko yàlla mottali. lan mooy sa relation entre waa Kër Seydi Hadji Malick parce que gis naa ne sa maam. taalibi Serigne Bamba Xaadimu Rasuul la. waaw mais ci ëttu waaw loolu mu ngi dooree ci sama maam Jaaji Njaay Njaay waaw. sama maam Jaaji Njaay hmm. yàlla dafa defoon mu nekkoon góor gu am taxawaay am jëmm. ba pare suñu kër kër jaaja ak kër sëñ bi gis nga niñ ñu ay wax sama maam jóge tool romb buntu këram pour dugg duggu këram mun naa wax mu nekk taalibu murit bi gënoon a jege sëñ bi ba pare gënoon a nekk xaritam wallaahi bu ko musaana romb di ko nuyu sama papa daf ma nettali benn jour mu ne daf ko romb di ko nuyu mm. fekk jour boobu bi mu ñëwee da doon gor selaan mm-hmm. xam nga salaan boo koy gor meññeef bi maanaam ndoxu salaan bi dafay mel ni meew. da takk te bu yendoo sa loxo day xaw a mel ni. col force day waaw. nee na mu ñëw muy nuyu mu liggéey ba wàcc tool ya ñëw di nuyu sëñ bi. Seydi Hadj Malick. muy nuyu sëñ Hadj Malick mu ni ko euh, sëñ bi de maa ngi jégalu de loxo yi dafa xaw a takk mu jël loxoom xaftaan bi mu soloon. mu dugal ci loxoom pour nuyu sëñ bi sëñ bi ne ko jaaji mu ne ko waaw ah, mu ne ko sa loxo yi nga xam ne dafa fas ne fanaanee liggéey si suba ba ngoon jot sa ñaq pour dundal sa njaboot nuyoo ma ko nii mu taqe noonu laa ko bëggee ndax mu barkeel donc ma jàpp ni que loolu ci samay ñoom maam laa ko fekk man mënuma ko dindi keneen mënu ko dindi ba fii may wax ak yow boo demee suñu kër cosaan di nga fa fekk teraanga waa kër Sidi Hadj Malick waa kër Sidi Hadj Malick si ba bërki démboo njaay bi sama ndijaay wàññeekoo hmm. defe naa yónnee nañ fa ceeb ak dugub wallaahi wallaahi yow mii waatiyaawoon nga xam nga bu baax képp ku génn àdduna fii hmm. jege xadara bi jege xadara hmm. xam nga bu baax même boo bu jegewul xadara bi sax dinañ la fekk taral dëgg la dëgg bi ñuy defal taalibe Seydi Hadj Malick keroog bi sa baay bu ndaw boobu wàññeekoo loolu lañ defal loolu lañ ko defal loolu lañ ko def. ndax dëkk googu. ndax dëkk boobu. ndeysaan. ñun ñooy les premiers murit yi jege jumaa ji. jege jumaa ji dëgg la. voilà mais sant suñu borom te xam ni loolu la yàlla dogal. dëgg la mais toujours rek dañuy jàpp ni que c'est la umma islamique. Mmh. voilà. Mmh. mën nañ xalaat ci la jeunesse de Tivaouane société bi bu gënee yaatu jeunesse bi mën nañ ci gis seen bopp. waxuma la jeunesse bi dina ci gis seen bopp mais Sénégal lañ bëgg mu gis si boppam parce que lii buñ ko modèle économique la buñ ko développé. mu màgg law dina tey xale yu ndaw yu bëri. ci dëkk ñu dem ci géej gi parce que kenn bëggu ko. yow mii bëggoo sa doom di la romb. naan la mi ngi jël ci gaal yow mii boo tëddoon sa kër ba guddi. sa xe ak phénomène bi xew léegi di nga jug dem ubbi say néegu doom xool ñoom ñëpp ba xam daj nañ. dëgg la voilà te loolu la ñuy moytu. Mm. te loolu nag pour mu mën a am ñun ñoo mën a jàppale Sénégal. Mm-hmm. bëgguma sax ma am nu may waxee muy mel ni da ngay politique wala lenn parce que man je suis apolitique. Mm-hmm. mais ndaw yi réew yi ñun ñoo war a téye ci seen loxo. Mm-hmm. parce que ndaw dafa sacré. Mm-hmm. vingt deux ans dix sept ans vingt quatre ans trente ans nga jël gaal ah pour espérer de lendemains meilleurs bàyyi jabar ñaari doom. rey sa bopp ci àll bi yaakaar sa bopp rek nga lor. fekk da ngaa ay nit ñu bare bari. loolu dafa neex mais vous savez très bien que ni vous les les les les directeurs entreprises là vous savez très bien que ci développement réew mi ngeen bokk. waaw donc vous ne faites pas de la politique. waaw mais ñun suñu devoir dañ koy def ba mu mat. ñun luy développer réew mi luy jariñ euh, réew mi ci la ñuy dox. lu koy développé di ko jariñ ci loolu rek mooy suñu mbébét loolu la ñuy dox te ci lañ ku ñëw fi ci nga ñuy fekk ku demee ci nga ñuy fekk voilà boo bëggee sa réew mm. étant un bon patriote da ngay jariñ sa réew jariñ sa réew nag mooy nga xool lu ko développé nga jàpp ci voilà jërëjëf bokki mi ngi noonu kooku moo doon Badou Ndiaye je trouve que ni waxtaan bi posé na jërëjëf am na solo jërëjëf euh, ñun waa wan kontaan nañ ci maa leen gën déclaration bi may def man je le fais en tant que El Hadj Mbengue Diop Mame Ndokh TV mooy euh, en tant que doomu Tiwaawan mu am teraanga bu toll nii indil nu ko ñun amuñu sa fay. ñoo ko bokk parce que ñun ñi nga xamante nii am nañ cinquante ans jëm kaw taxuñu suñu doom yi moo tax nga indi ko fi kon ñun amuñu sa fay. kon ñu ngi lay ñaanal yàlla fi nga bëgg mu yegg fa yàlla na ko fa yàlla yóbbu te dañoo am devoir pour jàppale la. parce que yéene bi nga am ba def ko ñun am nañ ko mais xëy na yow la ko yàlla jox dañuy àndandoo ci sunu xol yi jàppale la yàlla defal la nga réussir ko parce que bu fekkoon loo lekk kese la ak loo naan bu la neexoon mën ngaa bañ a sam société boo sampee société bi fii yaa ngi sóor yeneen doomi jàmbur ak yeneen jarbaati jàmbur ak yeneen siti jàmbur yoo xamante ni da ngay bokk ak ñoom alal ji nga kon yàlla la ci yàlla defal ndam ci barke yonente bi ñun waat ñoo war a njëkk a jiitu ci jàppale la ci lii mu réussir parce que bu réussir feneen fu mu dem bu ñuy wax dan naan Tiwaawan la tàmbalee. xam nga li solo. mooy euh, defe naa le message est bien passé. oui kase nekkuma fi ci jeune ci Tivaouane man kase nekkuma fi ci un opérateur dans Tivaouane euh, ay taalibe ñu ngi fi ay jegeñaale ñu ngi fi ñu fiy liggéey ñu ngi fi ñu fi dëkk ñu ngi fi donc je pense que ni si tout le monde mettait la mais à la pâte dina gën a développer. Mm. di invité nit ñi tamit. investissement ku fi mën a créer usine surtout de la commune. nga créer ko pour mun a dimbali jeunes parce que li xew Mbour bërki démb mën naa xewee fii. mun naa xewee faneen mun naa xewee faneen te fépp fu munti xew rek kenn du ko bëgg. te kenn du ko rafetlu. Sénégal gépp ko Sénégal yëpp ko bokk. di la wax nag xam naa ni moom bu fi gaal nar a moom yow laa nar dugal ci gaal gi nga dem <laughs> xaw ma nag <laughs> loolu nag moom moom dañ koy daal di wax moom waaw <laughs> kay léegi rek moom bu fi gaal na reyaamaat moom moom dinaa la dajale moom njóobeen yëpp dinaa leen dajale dugal leen ci gaal bi ñun ni leen yéen jiitu leen ngeen xaar ñu voilà. <laughs> jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu <laughs> le président dimbali ñu suñ societé yi mu law ala badoor jël njóobeen di leen yàpp ci ay gaal di yóbbu ci géej gi te xamuñu luy ay ajoor ajoor lañu non njóobeen yi mun nañu fay yàlla na yàlla <laughs> barkeel lépp bu baax di la gërëm jërëjëf jërëjëf El Hadj vraiment yóbbante yi nga xamante ni ñi mënta jot ci yow ñu ma koy yóbbante mooy loo leen defal suba ba ngoon rek jot nañ ci bi may ñëw rek la ma bés sama benn xarit mu ñuy wax alxaaj njaw ma kodd sàmb wax teraanga yi ngay séq ak moom ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw li ma gën a neex ci yow mooy famille bi nga bokk kenn ku ci dugg nga ca benn néeg jël fa kenn yóbbu ko ci société di ko fay mu yóbbul njabootam yàlla yàlla guddal sa fan. amiin yaa rabbi maa ngi leen di sant baax di leen gërëm alxaaj njaw ma ndox ci jërë ngeen jëf